يا رمضان محلى ايامك بارك هالمولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى ايامك lii moom du vie aw ma papa aw ma yaay dund lekk ay mango ay màdd vraie vie de débauche mango bu wóor na ma sakku suukar mon amour eh, mon amour non yow dangaa ñàkk fayda te non man man man man vraiment eh, comme d'habitude jaruma lay laaj ndax woor na wala woor saa eh, si ngay def tey ah. moom dama woor kese maa fi nekk de danga woor non grave tey <laughs> tey moom dama woor quoi wooy tey dama woor su la nekk bugguma nag damay fekkee nii non grave tàmm tàmm naa ko pas l'habitude. mais xanaa tey tey tey waroon na jàpp si yàlla rek woon ana paa mère. comme dab. mère fay na ba tey yëngagul. teg nii yàlla woo naa ko na ma tànk sama papa fasewul ñaareelam boobu ni tàmboobe du ko ñëw ci kër gi. tey moo gëm yàlla rek. te moo gëm yàlla ñëw say sayam bii. man te jéeg boobu noonu la ñàkkee jom li ma ko toroxal ci diggu dëkk bi. sam papa dégg naa nee na ba tey ma ngay dem léegi sam koy fekk ji dégg ah. sama paa fa la dem xam dem bu deful foofu ma nga géej. te bu demee géej ay une semaine la fay dem man dinaa dem sa gàllankoor wax ak moom. ah war naa wax moom non man dinaa fa dem. dinaa fa parce que xale bu ndaw laa dundee ba pare yóbbu ba ñàkk nga njëriñ. te ma jox ravitaillement tamit nag sonn naa si mango yeeg màdde. ah non non amul temps yi amul temps yi man j'en ai marre chaque jour may dundee li ni golo. mu nomb yow fan yii yëpp liggéey fan yow xam na nu mu fa demee. bu ma yor dañ koy bokk wàññiwul la dara. war nga koo mën ci dara maa ngi nii mango bi laa yor bu dog jotee ma xam ne. lii kañ la kañ la la dab. sam dafa takk ñaareel moo ma doon jox joxatu ko loolu bëgg ma génn ci mbedd di ko ut. moom lan la ko def. nee na sama papa moo xam ne dañoo toog pour surveiller ma ndax man sotee si kër gi. kan lay surveiller ma man. Ah, <laughs> xam nga da am chance dama nëroon fekk la fii rek ak ay arrêt da am chance yow nan solee sa lu ndaw loolu jàll fii nii. woddoo sama seet ba dem sangu ji nga ne sama lu ndaw lu ndaw lan laa sol. bu ko def dafa caag bu ko def dëgg dégg nga

Ah. Eliou. noo def. billaahi keroog ba ñu yóbbee ba léegi ci biirum liggéey bee sama ginnaaw gi mu ngi ne mbaamu ndaw fi wéex ah xaa waxoo mu utal leen liggéey rek loolu laa def bu xoolee bu ma sonal nag de. Hmm. mbaa yàggoo leen fi. lu sayoon lu sayoon doo maandu doo maandu. Eh. booy ma gis la kaay. lan la kaay ma gis la ñëwul. day xaar ma ñu. luy sa problème. mooy booy bi yëgul nag. waxoo ko kon gaaral si tension. ok. oh waay. salaamaaleykum. ah noo def. nijaay. ñëwal yëgal suuf. maa nga jàmm. ah. kon li la ma ko waxee woon toogal mbaa nga jàmm. sama jàmm baax. naka activité yi. ah lan la yow. doo isolé wu. sataan dañoo ne doo ko nuyu. nuyu nuyu ko. kon kii mooy sataan la yow. sataan dajaa nekk nii. ah li nga xam génn bi. kii la woon takk. woon kii la takk kii mooy ñaareelu woon. da nga ko xam. eh voilà. ah ni ñëw ñëw ndi su ñëwul si ginnaaw ah, ñëwal. eh bàyyi jàmbur yow. am sa mango bi yeggali si rek. kii nii sa mango yi. eh sa tante dafa ñëw pour toogal si man ko tey sa bàyyi moo moo ko bi yabaloon mbaa olof na la lépp rek. wuyu ma wuyu ma man fi mu toll am ma tawaay du weer maa ngi dem. kii kii yow kii booy mbaa meroo. maa ngi bul mer de. dama wax ak man de. bul wax ak man est-ce que dégg bu baax. ay mooy sa paak bi bu dañ koy seet eh jama sa place. donc jéeg bu perte bu ñëw fekkuma sama kër. donc kuy léegi kuy yéeg bu perte sa bu perte. sa baay tax yéeg bu perte. man sa mbaay paa bu perte la. moo moo tax mu takk jéeg bu perte am xarit bu perte ngeen ànd nekk ay pertale maa. Seyda Faye. sama yaay fay ak ñàkk fay sa yoon nekku sama sëy tamit. xoolal ki peleen seen problème te ngeen bàyyi ma sinon man fi ma leen làq soriwul samay toroxal laa yor waaw kay. a. Eh, ba sa morom eh, bopp point. Ah. Eliou wax na ma de. Eliou la. Ah, xam nga ma xam ñuus boobu delluwaat si lay kër yoon boobu. ay Eliou. eh xam nga làmb lu ko guddal lu ko gàttal kii na génn kër na ko bokk na génn kër na génn. génn kër gaaw bul toog génn. génnuma. Eh. na génn kër gi. am na génn. ma ma ma ma la mësu. bàyyi bàyyi doo ma ma la mësu. doo la mësu. Eh, génn kër gaaw sa korop toog. génn kër kër gaaw. kër gi da nga koy génn fii doo fi toog. ay nii da sa xol sedd. teel a koy ñu si mbéj ba mu daw génn kër. Eh. génn kër gaaw génn. génn ma. eh. eh kër gi génn fa yow. eh. demoo. waaw day taal. yow. man ngay dëpp mer. waxal waxal. man ngay dëpp mer. yow papa amoo amoo benn njëriñ. am naa njëriñ kay. jëmbutal na ma bu la neex doxeel mënatuma dem mënatuma dem mënatuma dem tey ñu wax say ñàkk faree bi abu dew ma ay xool sama xool jaar jaaruma ni jaar loolu jaar fa dox ko dew ma loolu ñu def dew ma sax fi garab ma sax fi garab xoolal bul ma tudd di bul ma taas bàyyante bàyyi naa la àdduna àllaaxira yaa xam yaa xam man góor laa ma foo xam jëm fa man faalew ma la يا رمضان أحلى أيامك باركها المولى وأدامك الجنة تعطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان أحلى أيامك